mbokki internet yu SATV ñu ngi leen di nuyu ñoo amaan mbégte euh, teew fi naa leen defal ab édition spéciale li ko waral mooy élection présidentielle gi ñu doon amal tey jii ci dimanche gi euh, fépp ci réew mi waaye itam ci bitim réew lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti mbër doon ci euh, jongante nag ba tax na comme ni ko sama naataango bii di ajaral Laye Ndiaye doon defal leen ko tey jii ci suba defal leen ab édition spéciale. jokkoog suñ ay reporter ñi nekk ci terrain bi dem ba ca Ziguinchor ca Thiès waaye itam fii ci Ndakaaru ba tax na loolu lañ loolu lañ leen nar a defal euh, ci euh, édition spéciale bi ñu sekk ak yéen woo suñu ay ndaw laaj leen résultat yi nga xamante ni moo tukkee ci seen euh, centre de vote yi ñu daal di nekk ba tax na dañuy jéem a jokkoog nag sunu ndaw yu nekk ci terrain bi dem ba ca diwaanu Thiès ak sunu ndaw la fa nekk di Marème Tine ñu xool ba xam euh, foofu résultat yi commencé na euh, wàcc wala commencé nañ ko affiché ndax cees am na ñaari mbër ku ci mel ni sa Seck ak kii di Thierno Alassane Sall ba tax na ñoom ñaar ñëpp dëkk euh, Thiès bokkoon ci élection gi nga xamante ni mooy élection palum njiitu réew ba tax nañu jéem a jokkook ak suñu ndaw lool di Marème tiin moom mi ñu teewal ca diwaanu Thiès jéem a xool foofu ba xam euh, résultat yi euh, mu ngi commencé wàcc foofu ca diwaanu Thiès ba tax na moom Marème Tine euh, ñu jéem rek jokkoo ak moom ba xam dina daal di jàppandi. Euh, comme niñ ko waxee léegi cees di gox boo xamante ni daanaka ku ko gagné waa nga mën a am résultat yu am solo ci ab élection ndax euh, ay at euh, ci ginnaaw sa Seck di candidat ci élection bi moom nag moo ko yàgg a gagné même ci élection législative yi ñu génn nag yi yi commencé na changé ba tax na Marème jàppandiwul ñu daal di des fii ci Ndakaaru jëm a jokkook sunu ay ndaw ku ci mel ni ba dara jaata moom nag moo ñu teewal. ca centre de vote ba Amadou Ba di euh, candidat parti au pouvoir euh, doon voté ñu jéem a jokkoo ak moom Alioune Badara Diatta ñu ngi lay nuyu. alors Alioune Badara Diatta yow yaa nekk ci centre de vote bi nga xamante ni Amadou Ba di la candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar foofu la voté est-ce que foofu résultat yi commencé na génn. bon résultat yi commencé génnagul nag parce que ñoo ngi réunir ci biir ba léegi. Hmm. def dépouillement bi donc xam naa d'un moment à l'autre rek dinañ commencé génn pour def affichage yi. Hmm. instant bi nii ñëpp a ngi toog jaaxle lu xaar journaliste yaa ngi fi bëri nañ fi sécurité bi aussi am na fi police yaa ngi fi donc euh, ñun daal ñoo ngi toog di xaar rek. Hmm. dañ bi ñu ñëwee dañ ñu waxoon ni duñ duñu dugg. parce que bureau de vote yi dañ ko tëj. bien vrai que bureau de vote yi dañ nañ ko à dix huit heures ba commencé def dépouillement bi ñu ni woon nag journalistes yi dañuy xaar ci biti en dehors du centre hmm. actuellement nag permettre nañ ñu ñu dugg biir négocier nañu ba ñu bàyyi ñu dugg donc pour l' daal journalistes yaa ngi toog nii si cour bi di xaar hmm. di xaar euh, di taaxeetlu euh, résultats yi di njëkk a génn kon daal ci lu yàggul daal mën nañ jàpp ni dinañu afficher les résultats ngeen jot waaw certainement seen liggéey ndax gaaw na wala gaawul. Hmm. parce que ñoo gis daal si entre daal sànq ba léegi ñuy jaabante entre les différents bureaux de vote xam naa ni du yàgg dara daal fii ak ay quelques simili rek. ñu hmm. génn def affichage yi comme ça ñu mën a xam résultat yi fii nii Parcelles Assainies nga xamante ni candidat Bokk Yaakaar bi amul ba. Hmm. dee tey ci ah, baax na kon dinañu jokkoo dinañ waat ak yow ci lu yàggul dara nga jox ñu résultat yi tukkee foofu. ca centre de vote bi nga xamante ni Amadou Ba di la candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar foofu la daal di voté di ko jaajëfal moom Alioune Badara Diatta ñu daal di dem xool suñu beneen ndaw bu nekk ci terrain bi ku ci mel ni Amadou Tidiane gay moom nag moo ñu teewal ci centre de vote bi nga xamante ni Khalifa Ababacar Sall foofu la daal di euh, voté ñu daal di rek jéem a xool foofu ndax résultat yi commencé na euh, wàcc foofu ci Grand Yoff Amadou Tidiane Gaye ñu lay nuyu. alors foofu résultat yi commencé na wadd walla euh, noonu ba léegi de ñu ngi xaar euh, gars yi ñu euh, ci biir bureau yi di calculer ba léegi ah. Hmm. presse bi daal li ñu mën wax en tout nañ ci biir école bi au moins ñu patienté. xaar waaw. ah instant yi daal yéen a ngi ci biir école bi. allo ma ni instant yaa yéen a ngi ci biir école bi. waaw waaw nañ ci biir école bi waaw waaw. ñu ngi hmm. xaar ba léegi waaw. kon daal ci ay simili yu néew résultat yi dinañ ko affiché ngeen jot. waaw waaw normalement waaw mm-hmm. ñu xaar ba léegi daal ñu ngi ci biir di calculer di di def li ñu war a def en tout cas ñu daal waaw. Mm-hmm. mais ba léegi daal résultat yi génn kon baax na dinañ jokkoon dinañ jokkowaat ak yow ci lu yàggul dara bu dee résultat yi euh, génn foofu. incha allah ca diwaanu Grand Yoff euh, ñuy fàttali ni yaa ñu fa teewal Grand Yoff foofu am ñaari mbër yu fa voté xalifa Ababacar Sall waaye itam ki nga xamante ni mooy Boubacar Camara ñu daal delluwaat ca diwaanu Thiès. jéem a jokkoog suñu ndaw la ñu fa teewal di Marème Tine ñu xool foofu tamit ndax euh, résultat yi commencé na fa wàcc foofu ca diwaanu Thiès comme ni ma ko waxee foofu itam ñaari mbër la am Idrissa Seck di euh, candidat parti réew mi waaye itam kii di Thierno Alassane Sall moom euh, di candidat république de valeurs ba tax na nag ñu jéem a xool rek sunu ndaw lañu fa teewal di Marème tiin xool ba xam euh, foofu résultat yi commencé na wadd euh, ba tax na nag euh, moom Marème Tine moo ñu teewal foofu ci benn dëkk ñaari gaar ci suba ba tey comme ni mu ko doon defee joxe ñu jox ñu li nga xamante ni moo tukkee foofu Marème Tine ñu ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay alors Marème foofu résultat yi wàcc na wala wàccagul. wàccagul ba léegi dañ ba léegi ñu ngi nekk di taaxirlu ah. hmm. dañ bi ñu leen génne woon ba tey dinañ wàcc hmm? man ñu ngi nekk di taxirlu espérance peut-être ci kanam dina wàcc yéen a ngi ci biti wala dugal nañ leen ci biir centre bi non dugaguñ nag de franchement hmm. ba léegi ñu ngi ci biti taxaw di xaar léegi euh, centre de vote yi nga xam te ni dafa am yu ñu prolongé woon jeex na wala ba tey ñu ngi wéyal vote gi waaw ba léegi daa mel ni ñooñu noonu yëpp tëj nañ leen jamono ji ah, parce que comme 18 la ñu calé woon je pense bien yooyu rek noonu rek hmm. mais lépp lépp hmm. kon baax na ñu jël en répérage rek au cas résultat yi commencé wàcc. Euh, nga hmm. daal di koy euh, dekkal sunu ay euh, internautes. Marème Tine di ko jaajëfal moo ñu teewal foofu ca diwaanu cees ñu jóge cees dem ba ca Ziguinchor di Ziguinchor ak sunu ndaw la fa nekk di Paul Dacosta Ziguinchor di la mën nañu woowee bastion Ousmane Sonko di la maire. waaye itam euh, am na yeneen leader pouvoir yu fa nekk ci mel ni Doudou Ka Benoît Sambou euh, ki nga xamante ni tamit euh, mooy Victorine Ndeye ñoom ñëpp nekk ca zone boobu ba tax na ñu jokk suñu ndaw la fa teewal Paul Dacosta ñu lay mu mel ni yëf yi jàppandeegul xëy na dinañ jokkoo moom ci kanam tuuti ndax yëf yi jàppandeegul. ak sunu ndaw loolu teewal ñu ca diwaanu Ziguinchor di euh, Paul euh, Da Costa kon mbokk yi mu ngi noonu euh, résultat yi di commencé wàcc nànk-nànk fenn ci réew mi ba tax na sax am na yoo xamante ni commencé nañ kaa jot nee nañ ca Pikine fi nga xamante ni nag mooy ca Pikine Pikine Texaco xëy na la la daal di bëgg a wax foofu ca diwaanu Pikine Texaco résultat yi nga xamante ni jot nañ ko. bureau 5 inscrite 103 votant 59 pur ñu ngi daal di am 11 vois benn bokk yaakaar am 8 Diomaye président am 39 Khalifa Sall daal di am ñi des nag euh, di ay yeneen mbër ñoom daal di am euh, zéro voix loolu nag mbokki ce diwaanu Pikine la pikin Pikine euh, Texaco ñu daal di koy bamtuwaat foofu ca diwaanu pikin bureau 5 ki nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo bind toll ci 103. votant yi toll ci euh, cinquante neuf pur ñoo am onze benn Bokk Yaakaar am huit euh, Diomaye président am trente neuf Khalifa am un ñi si des nag am euh, li nga xamante ni mooy zéro voix ñu daal dem ca Ndar Géej foofu ca diwaanu Gox Mbaaj foofu itam am na résultat yu fa commencé wàcc ba tax na nag foofu ca ca diwaanu Ndar Géej kii di Boubacar Camara mu ngi am une voix. Cheikh Tidiane Dièye am une voix Déthié Fall une voix euh, professeur Daouda Ndiaye moom itam am euh, une voix Habib si am euh, une voix xalifa Ababacar Sall six voix Anta Babacar Ngom zéro voix Amadou Ba am quatre-vingts voix ki nga xamante ni nag mooy Idrissa Seck deux voix Aliou Mamadou Dia neuf voix Serigne Mboup moom mu ngi am lii di zéro voix Pape Djibril Fall deux Mamadou Lamine Diallo zéro voix Mahammed Boun Abdallah Dionne une voix euh, ki nga xamante ni nag mooy Bassirou Diomaye fay am 227 voix foofu ca diwaanu ndax géej kon di ab centre euh, gox mbaaj Bassirou Diomaye fay moo am 227 voix Amadou Ba am 80 voix ndax ñoom ñaar ñoo si ñoo si ëppale voix loolu nag di ca diwaanu euh, ndax géej kon nag ci kanam tuuti mbokk yi dinañu jokkook suñu ay ñi nga xamante ni ñoo suñu ndaw yi nekk ci terrain bi comme ni ñu leen ko waxee léegi ñoom nee nañu euh, résultats yi commencé gul euh, wàcc am na yeneen résultats yi tam wàcc na foofu nag ca diwaanu Touba la Touba euh, fi nga xamante ni mooy Touba daaw naan foofu nag résultats yi commencé na wàcc foofu ñu daal di leen koy dégtal ak yéen mbokk yi nga xamante ni yéen ñuy suivre fii nga xamante ni nag mooy SA TV. te ay résultats yoo xamante ni commencé na wàcc foofu ca diwaanu Touba di Touba daaw Marnaan euh, ba tax nag euh, yooyu euh, li ñu wane nag mooy foofu Bassirou Diomaye Faye am na deux cent soixante-dix-neuf voix ki nga xamante ni nag mooy Amadou Ba am seize voix lool di ca diwaanu Touba Daaru Marnaan ba nag mbokk yi noonu la ñuy wéeg yéen di leen digteel résultats yi nga xamante ni mooy tukkee ci élection gi nga xamante ni moo amoon tey jii ci réew mi ñu naa tab nag njiitu réew Sénégal mu nar a nekk juróomeelu njiitu réew gannaaw ba ñu fi falee Léopold Sédar mu def fi ñaar fukki at Abdou Diouf itam ñu fal ko mu def fi ñaar fukki at Abdoulaye Wade def fi fukki at ak ñaar Macky Sall def fukki at ak ñaar tey jii nag ñu nar a fal euh, juróomeelu njiitu réewum Sénégal ba tax na nag euh, résultat yooyu daal lañ leen di dégtal. dara du leen ci euh, umpu ba tax nag yi fii di commencé wàcc euh, nànk-nànk fu bëri ci euh, réew mi ba tax nag résultat yi nag li mu wane nag mooy ñaar daal ñoo si gën a wanewu kii di Jomaay Fay Basiru Jomaay Fay ak ki nga xamante ni mooy Amadou Ba ba tax na nag loolu moom la résultat yi gën a daal di firndeel ba tax na nag élection googu euh, comme ni ma ko waxee tey jii la amoon xanaa ñu daal di jéem a xoolaat rek nu ñuy euh, jokkoo ak suñu ay euh, ndaw daal di leen laaj foofu tamit ndax résultat yi commencé na wadd xanaa ñu delluwaat ba ca diwaanu Kees xool sunu ndaw la fa nekk di Marème Tine ñu laaj ko Marème ndax foofu comme ni mu ko waxee léegi yëfi tàmbaleegul ñu ngi il est 18h55 te bureau de vote yi 18h la war a tëj. Euh, te bu 18h jotee ci la ñu waa joxe li nga xamante ni mooy euh, résultat yi ba tax na ñu dem foofu ba ca diwaanu Thiès jokkoog suñu ndaw lañu fa teewal di Marème Tine xool ba xam foofu ndax résultat yi euh, commencé na génn ñu taaxirlu xool ba xam moom Marème Tine dinañu xamal ndax résultat yi commencé na wàcc foofu ca diwaanu kees comme ni ma ko waxee léegi. Thiès am ñaari mbër yu fay yoo xamante ni fa la dëkk di Idrissa Seck ay at ci ginnaaw mu yàgg ka gagné waaye itam kii di Thierno Alassane Sall moom itam di dëkk foofu ca diwaanu cees jokkoo bi antuwul ak euh, sunu ndaw lii di Marème euh, tiin ñu delluwaat ca parcelle xool sunu ndaw lii di Alioune Badara Diatta xoolaat ba xam foofu euh, ndax résultat yi wàcc na walla déet. Euh, foofu ca diwaanu Parcelles Assainies Alioune Badara jaata résultat yi wàcc na wala déet Alioune Badara Diatta allo Alioune Badara Diatta yaa ñuy dégg. waaw da ni foofu alors yëf yi wàcc na wala wàccagul. am na benn bu wàcc nii moom dañuy moom dañuy daw di taasiru lu xool. waaw. Euh, allez waa xam naa ak euh, journaliste yi fa nekk du yomb daal. allo mën nañu gis que ni Amadou la. waaw. Bassirou Diomaye Faye. Mhm. deux cent trente mooy mooy bureau bi Amadou Ba voté wala. bureau numéro neuf. ok. 238 84 fii nii ci HLM Grand Médine. Mhm. Euh, gis nañ ko ni waaw Bassirou Diomaye Faye moom 280 284. Mhm. Euh, Amadou Ba am 30 30. 30 ñaar yooyu ñoo génnagum wala am na yu des. xaar xaar waaw rappelé ma rappelé ma ma gis affaire bi quoi. d' accord d' kon dinañ la waat léegi mais li ñu jot yëf yi li mu jote wane daal mooy foofu Amadou Ba centre de vote euh, bi nga xamante ni mooy ca diwaanu parcelle euh, ci ñaari bureau yi nga xamante ni sunu ndaw lii di Alioune Badara Diatta moom lañu daal di xamle kii di Bassirou Diomaye fay moo gagné largement Amadou Ba mi nga xamante ni parcelle googu la dëkk waaye itam parcelle mooy fiefam waaye centre de vote bi nga xamante ni fa la voté ci li nga xamante ni moo génn gum moom euh, Bassirou Diomaye fay moo fa gagné gum Amadou Ba ñu daal dem xool. Euh, ca diwaanu euh, Grand Yoff ak suñu ndaw la fa nekk di Amadou Tidiane Gaye xool ba xam foofu résultat yi génn na euh, ba xam foofu ca diwaanu Grand Yoff Amadou Tidiane Gaye affaire génn na wala hmm, foofu moom xanaa gars yi dañuy xaar ba dog wala. Hmm. Hmm. est-ce que foofu am na affluence am na militant yu nekk aux alentours. Euh, non non pour l'instant daal ñëpp dañoo kii dañoo tëj école bi ñu rek ñoo fi nekk. y a que waaw waaw y a que les hmm. waaw kon euh, dinañ la woowaat léegi euh, foofu ndax foofu ca ca diwaanu Grand Yoff itam comme ni ma ko waxee Khalifa Sall fa la voté y a Boubacar Camara waaye itam am na le jeune Ngagne Demba Touré même si sax ba mu ñëwee après son retour d'exil xawoon na mel ni. ku promettre ni xalifa Sall du fa am dara ba tax lu si gën a euh, lu si mënti am daal yow ci kanam tuuti di ñu dégtal résultat yi suñu ay internautes daal di siy jot. Amadou Tidiane Gaye di ko di ko jaajëfal kon mbokk yi foofu ca diwaanu Grand Yoff ba tey jile euh, li nga xamante ni nag euh, mooy résultat yi génnagul foofu à part li nga xamante ni moom lañu ñu Alioune Badara Diatta daal di wax. Euh, ni foofu fa Amadou Ba voté daal ca Parcelles Assainies ñaari bureau de vote yi nga xamante ni euh, foofu euh, génn na Bassirou Diomaye fay moo daal di moo daal di jël raw gàdd gi ñu dem ba diwaanu Ziguinchor ak sunu ndaw lii di Paul Dacosta Paul ñu ngi lay nuyu. Paul foofu ca diwaanu Ziguinchor résultat yi daa commencé wàcc. bu wàcc man maa ngi fii ci euh, école HLM Nema mhm. fii nag euh, fii ñaari centre ñoo fi ñoo fi nekk mhm. Mhm. mooy euh, centre mooy HLM Nema ak centre mooy numéro deux bi mooy Bukot Sud Nema pour l'instant nag centre numéro deux bi mooy Bukot Sud Nema bureau numéro deux encore ñoom ñoo génnee gum seen résultat ñoom ñoo pare dépouillé donc résultat yaa ngi ñooy les résultats donc pour inscrits ils sont au nombre de léegi votants yi ci jot a voté mooy ñoom ñu ngi au nombre deux cent vingt quatre mhm. ak ñi nga xam ni nag ñoom ce sont des gens euh, hors bureau ñoom huit lañu mooy ñi nga xam ni waruñu fi woon voté mais dañoo dañoo voté foofu noonu ñoom duñ leen jël ci décompte bi ci ci fii ci ci ci Ziguinchor mhm. euh, ak euh, nombre de bulletins nuls yi donc ils sont deux donc par ruissellement dinañ am normalement donc c'est deux cent vingt deux mooy ñi nga mhm. xam ne ñoom ñoo def seen suffrage valablement Euh, exprimer pour l'instant loolu lañ leen mën a mun a wax parce que yeneen yeneen kii beneen centre bi nekk à côté ñoom ñu ngi ñu ngi def seen dépouillement ba léegi mhm. euh, ñu jot a voté dañoo bëri parce que Ziguinchor euh, kii bi mooy pourcentage mooy ñi ñëw voté mu ngi élevé au nombre pour cent ça ñi ñëw nañu énormément mooy mooy voté moo tax dépouillement bi xaw a yàgg donc maa ngi leen di remercier léegi foofu waa ci résultat yi nga jot a waxee ni kan moo gañeegum wala wane guñ ko Euh, pour pour pour pour l'instant euh, kii wooguñ ko parce que ñoom ñu ngi soogay kii tafaguñ ko. donc ok ci nombre de votants yi daal lañu nekk. voilà dama leen joxagum euh, résultat yu provisoire léegi bu ma xaaree bu ñu ko tafee après ma ma. très bien kon kon Paul Da ñu ngi taaxirlu foofu ca Ziguinchor lu fa ruuse rek nga daal di ñu koy jox bu ko defee suñu ay internet daal du leen si daal di rëcci di la jaajëfal Paul Da Euh, kon mbokk yi yéen a déggandoo foofu ca diwaanu Ziguinchor tamit léegi résultat yi daal di euh, commencé wadd euh, ba tax na nag ñu daal di ñëw ci bureau de vote comme ni ñu ko waxee woon léegi bureau de vote neuf ca diwaanu Parcelles Assainies Bassirou Diomaye fay mu ngi am ci li nga xamante ni mu ngi toll ci 237 voix kii di Amadou Ba di centre bi nga xamante ni foofu la voté moom nag mu ngi am. lii di euh, quatre-vingt-quatre euh, voix di ay résultat yoo xamante ni sunu ndaw la ñu fa teewal di Alioune Badara Diatta moo ñu ko daal di jox foofu ca euh, diwaanu Parcelles asseni ba tax na nag moom Alioune Badara jaata xanaa ñu daal di jéem a jokkoo ak moom delluwaat foofu ca diwaanu Parcelles Assainies seeti ko moom Alioune Badara Diatta ngir nag mu daal di ñuy dégtal résultats yi nga xamante ni. moo tukkee ca centre boobu nga xamante ni fa la ki nga xamante ni nag euh, mooy Amadou Ba di voté Aliou Badara Diatta euh, yaa ngi woon ci ñaari bureau de vote est-ce que am na yeneen résultat yu daal di génnaat. bon résultat bi génn benn gese lañu affiché gum pour l'instant mooy résultat bi ñu gis ci bi ñu affiché bureau neuf. Mm-hmm. nga xamante ni foofu noonu ki ñuy wax candidat Bassirou Diomaye Faye moo fa devancé gum mhm. moom moo ngi am euh, deux cent mhm. nga xamante ni moo si topp mooy mooy Amadou Ba moom moo ngi am quatre vingt quatre voix mhm. après Khalifa Sall moo si tegu am douze voix ensuite euh, Aliou Mamadou Dia six voix le reste moom ñoom ay zéro kon daal bu ci centre de vote boobu ñu génn gum waaw xamante mhm. ci sama laaj mooy kon ñaari bureau de vote yooyu jotagum génn kii di Diomaye fay moo dominé largement Amadou Ba mi nga xamante ni foofu mooy son centre de vote. ah benn bureau de vote moo génnagul hmm? ah, ok. voilà. d' accord donc ñu xaar yeneen bureau de vote yi d' un autre. di la. di la di la di la jaajëfal Alioune Badara Diatta xëy na dinañ la daal di euh, woowaat ci euh, kanam tuuti yow yaa ñu teewaloon euh, yaa ñu teewal sax foofu ca diwaanu Parcelles Assainies rawatina ci centre de vote bi nga xamante ni kii di Bassirou Diomaye fay fa la daal di voté ba tax na nag comme ni nga ko waxee benn bureau de vote képp moo génn génnagum. Euh, fi nga xamante ni nag euh, mooy euh, foofu ca diwaanu parcelle centre de vote bi nga xamante ni fa la Amadou Ba daal di voté bureau de boobu génn Jomaay moo dominé largement ki nga xamante ni nag mooy Amadou Ba li nga xamante ni nag mooy taux de participation élection bi tey jii ca diwaanu Géejawaay toll na ci 64 virgule 20 pour cent bu ñu dégloo ki nga xamante ni nag mooy préfet bi. Euh, mu mel ni ren gi nag taux de participation bi dafa daal di élevé wuuteeg loolu élection gi nga xamante ni moom la ñu génn di élection législative yi xëy na ci kanam tuuti dinañu am le le le chiffre exact daal di leen ko euh, wax yéen mbokk yi nga xamante ni yéen nañuy suivre ci euh, SATV kon nag ñu seetiwaat rek sunu ay ndaw yi nekk ci terrain bi jéem a jokkoo ñoom xool foofu tamit lan moo fa daal di tukkee. ñu delluwaat ca diwaanu Thiès ak sunu ndaw la fa nekk di Marème tiin ñu xool foofu itam Thiès ndax euh, résultat yi commencé na génn euh, comme ni ma ko waxee cees euh, nekk dëkk boo xamante ni daanaka am na ñaari mbër yu ci jongante wala yu fa dëkk di sa Seck ak Thierno Alassane Sall at yi ñu génn nag moom Idrissa Seck yàgg a gañe diwaanu cees waaye nag élection législative yi ñu génn résultat bi nag euh, mu mel ni euh, waa Thiès ceesuwaay daal dañ ko commencé wan ginnaaw est-ce que élection gii dinañ ko daal di euh, joxaat nopp lépp dina leer ak sunu ndaw li nga xamante ni moo ñu fa teewal ak résultat yi nga xamante ni moo fa nar a tukkee foofu ca diwaanu Thiès ñu taaxirlu tuuti ak moom Mariam Tine xool résultat yi nga xamante ni. moo fa nar a tukkee mu mel ni nag euh, jokko bi antuwul kon nag euh, mbokk yi ñu daal di taaxeelu tuuti ak sunu ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci terrain bi ñoom nag euh, def lu am solo ba la nga xamante ni nag dara bañ leen a raw ci li nga xamante ni mooy résultat élection présidentielle fii ci diwaanu Sénégal kon nag mbokk yi ñu daal di xaw a Euh, voilà daal di def benn une petite pause euh, ci kanam tuuti ñu daal di fii ñëwaat ak li nga xamante ni mooy résultat golo booy waaye itam dina am sunu ay ndaw yoo xamante ni dinañ teew ci plateau bi ñu daal di fi amal ab euh, waxtaan. donc mu nekkoon première partie li nga xamante ni mooy édition spéciale bi dinañ fi teewaat ci ay simili yu néew jokkook sunu ay ndaw yi nekk ci terrain bi bu ko defee nag dara du leen ump ci li nga xamante ni. mooy résultat yu élection présidentielle gi nga xamante ni moom la ñuy amal fii ci réew mi kon nag léegi léegi ñu daal fi teewaat.